allahu taala anu mu demee woon te tey ñu def ko imam Jibril Sine fekkewu ko dañ koy jël doo ko jël imam Cheikh incha allah imam ñu lay ziar ku xam na sa diggante ak imam Jibril Sine ni ko yàlla demee woon bis bi biñ ko mujjee def yàlla dogaloon na fekke na ko tey ñu ngi koy defaat fekkewu ko bokk na si moom ñi ñuy rendre hommage incha allah ak yëg-yëg xanaa ñu sant yàlla rek julli yonent bi sallallahu alayhi wa nuyu leen siyaar leen ñaan euh, bis yàlla nañ ko defaat déwén ak jàmm mu mel ni li nga xam ni rek moom la ñu xam ci imam Jibril Sine te ñoo daan bokk di def bis bii fa tabaarakallaahu mu daan taxaw muy rafet lépp di rafet xam naa xel yëpp dañ na ko yaram yu bare bare bare daw na dañ koy ñaanal rek fa mu nekk yal na yàlla seral ay yaxam yal na yàlla uuti ko ci njabootam waaye yaram yëpp daw na tel yëpp daj na ko fii la daan toog ci wetu Pape Malick euh, su jëlee kàddu ñëpp bég ñëpp kontaan li mu doon mu mat ko sëkk mat imaam di borom xam-xam di ko ku oyof di ko rafet jikko di ko tabe di xam ne li ñuy seet ci doomu soxna yëpp macha allahu mu ngi ci moom dañ koy ñaanal fa mu tëdd yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla jéggal ko ah, lii rek la bëggoon nag li mu bëggoon yàlla defal na ko mooy tënk njaboot gi ci njub tënk njaboot gi ci islaam tënk njaboot gi ci mbë bëggante ah, loolu nag fa mu tëdd ah, am naa yaakaar ni tàkkusaan gi ma ko koy yëg fa mu tëdd yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla jéggal ko wa ma zalik ala llahi bi salli ala sayyidina muhammadin wa sallim